ñoo ngi lay nuyu di la ziar yaag mbokk yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci jataay bi di sant yàlla bu baax di la sant ci liggéeylu gi nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom nga yëkkati te mu jëm ci mbindum sëriñ bi di la wax ne li ñu jot dajale fii ci ay téere muy juróom-benn diwaan yi li ci war lépp ci saytu ko ci topp ko ci ña ko doon bind def nañ ko ci anam goo xam ne anam gu ñu sonne la juróom-benn diwaan yi e, téeméeri xasida ak juróom-benn fukk ñoo ci nekk téeméeri xasida ak juróom-benn fukk mu mel ni. li ëpp ci xasida yi nga xam ne moom moo mooy yi ñuy mool nii te mu tasaaroo mi ngi ci juróom benn diwaan yi mu des ndax lépp diwaan yëpp bu ñu ko xoolee mu ngi nekk juróom-ñeent fukki diwaan ak juróom ñu fàttali ne sëriñ Alaaji Mbàkke mu suñu suwaab sa ak sëriñ Jiili Mbàkke Abdu Xaadir mu suñ Seex May ñoo seqoon liggéey bi sëriñ Alaaji di ko bind ci mbindum wolof mi sëriñ jiiri di ko mbind ci mbindum mi ci des muy mbindum ordinateur mi loolu nag bu dajee day mel ni sëriñ bi ci itte ittewoo xasidaam ak ittewoo liggéeyal sëriñ bi moom moo tax mu tànnal ñu mag suñ Cheikh Fano mi ngir ñu taxaw ci mu tasaaroo def na ci alalam ju bari eh, ngir bëgg rek mu di yëpp jariñu ci kon nag sëriñ bi dafa mel ni dañoo tàmbali ci door rek ndax lu tolloog juróom-ñeent fukki diwaan ak juróom bu fekkee juróom-benn rek lañ ci defagun des na lu bari waaye nag incha allah fas nañ yéene ni nga ko bëggee dana sottee noonu ndax xam nañ ne njariñul yoon wépp la njariñul murit yépp la kon nag xam naa ginnaaw jotaay bi day xat ñu ko tënk incha allah xam ne li ci des daal incha allah ñu ngi ci. te lépp dana dana sotti bu soob yàlla jërëjëf. mooy yeesal ay <coughs> sant gi ma sant ngir boole gi ma boole sëriñ bi moo jiitu di sant sëriñ bi ci sama lépp yi ëllëg ndax li ma sama lépp tey ëllëg moom dong laa ci wut. moom dong laa ci wut. moom dong laa ci mënut a ñàkk. di ko sant nag. baax a baax. fu xel mën a yem ak cant. xol man faa ak. foofee laa koy àggale. maa ngi leen di seereel sama cant bu rëy. la ca dolliku nag. moo di ni ma ko waxee rek suñ diggante ak sëriñ bi sama doom yu baax yii sama doom yu baax yii xam naa ne dañoo bokk rek ci pàggu sëriñ bi ndax xam naa ne dañoo bokk rek ci pàggu sëriñ bi sëriñ bi may dégg di di dégg dégg dégg yitte jure ji nga xam ne def na ci bind bi muy dégg di dégmati rek di dégg di dégg di dégg ba dégg ñaar yooyu nga xam ne mooy doomi mooy sëñ jiir moom sëñ Cheikh May ak sëñ Fallou moom sëñ Moustapha Absa ci seen i ak seen may dégg ba suñu borom dogal nag ma am na mu ci xam. sëñ Fallou mii moom amoon naa ndigal ci moom jaar na fi man ci ndigal sëñ Sall. sëñ Xalil moom mii moom amoon naa ndigal ci moom ci ndigalal sëñ Saliou jaar na ci man. moom it taxawaayu ñooñu rek la yor. moom it taxawaayu ñooñu rek la yor. ñoo ko andi itam ñoo ko andi oh. bi ma gisee loolu. bi ma gisee loolu. mu yëg ko mu sori ci man lool. ma yëg ko mu sori man lool. wóor na ma ne. mu wóor na ma ne. lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi. lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal ko si xasida yi moo jiitu. moo ci jiitu. bi ma xamee loolu. bi ma xamee loolu. sama doom jee di seet di seet di seet di seet Fatma. sama doom jee di seet Cheikh Fatma moom sëñ Moussa Bachir. yàlla defal nu ci tawféex ci moom. la yàlla defal nu tawféex ci moom. defal nu ci njub. defal nu ci xam-xam. yàlla xeer ko itam. yàlla xeer ko itam. ci liggéey boobu. ci liggéey liggéeyu liggéey yëpp. ndax liggéeyu sëriñ bi moo liggéey yëpp. liggéey mu doon mu defal boppam. liggéey boobu moo defal boppam. digg ma borom. diggal ma boromam. digg ma yonent bi. diggante ma yonent bi. digg boppam. diggante ma boppam. Hmm. ma daal di santaan nag. ma daal di santaan nag. sëñ Cheikh moom yi. sëñ Cheikh moom yi. nga xam ne. sama xel dafa daal di dal jëm ci li ma yéene. loolu nag tax. loolu nag tax. tawfeex ji ma am ci sama doom yii. tawfeex ji ma am ci sama doom yii. ma bëgg ma bëgg leen fekk. ma bëgg leen fekk. bëgg lu ñu bind rek. bëgg lu ñu bind rek. fu seen fu ñu ca àgg ak yitte rek. fu ñu ca àgg ak yitte rek. maandi ko ñoom maandi ko ñoom bind rek. lu ñu bind rek.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 Ah, ku yeyoo ci jotaay bi nii mu demee nii rek nii noonu laa ko bëggee woon noonu nii laa ko bëggee woon waaw ñu bokk jotaay ñu bokk jotaay ma sant leen ma sant leen kañ leen kañ leen di seereel sama borom seereel sama borom di seereel sëriñ bi di seereel sëriñ bi ni seen liggéey boobu yi ni seen liggéey boobu yi ñu sëngu fas yéene caa ànd fas yéene caa ànd ak ñoom feeg fas yéene caa ànd ak ñoom feeg maa ngi noy na yàgg lool loolu nag moom moom laa leen doon seeral ñoom. loolu moom leen di laa leen doon seeral ñoom. ba ko seeral bokk yu baax yi yëpp. nga xam ne am nañ yooyu teew ci jotaay bi. loolu rek la. loolu rek la. ndax yàgg fi lool. na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen seere na daal. na ngeen seere na ni ma ko waxee woon rek. ni ma ko waxee woon rek bi rek laa mënut a ñàkk. sëñ bi rek laa mënut a ñàkk. tey ëllëg. tey ëllëg. waaye na ngeen itam nag na ngeen seere itam nag yitte ji yàlla teg ci sama bopp yëg ji yàlla teg ci sama bopp yenn ko yóbbu ko fa fa ko sëriñ bi bëggee te bu ma sañoon yenn ko yóbbu ko fa ko sëriñ bi bëggee waaye yitte ji nag waaye nag yitte ji nag lii laa ci jiital lii laa ci jiital fas yéene cee liggéey rek fas yéene liggéey rek nag lu ci mën a boole boole lu ma ci mën a boole boole loolu laa leen di seere loolu laa waaye yaakaar ne yaakaar ne buñ ci nekkee ci nekkee dana mas bari lool dana mas a bari lool moo tax loolu nag moo tax. ñu ko kër boppam. waaw ñu wutal ko kër boppam. dara xajatu. déedéet foofu yëpp tubaarkalla. waaw waaye bëgg bii moom ñu ko kër boppam boo hmm. nekk. kër boppam boo xam ne mooy ngeen xamaale ko. ngeen dañ ko dañ ko daan taamu sóobu nag dañ ko ci sóobu ci saasi. may xalaat. bi may xalaat. agsi ci.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 ngeen xamee ko rek. moom mii déewoon naa ko moom sëñ aatu bi. ne kër googu. ne kër googu. moom mii sëñ aatu mook moom ñoo koy liggéey. mënoon naa maa wax Cheikh ak sëñ Ahmad Badé ñu seet. ñi kuñ koy liggéeyloo. kuñ koy liggéeyloo. ca barab ba ci université ba. ñi ci am yéene bari lool. waaye damaa xam ne lii moom. moom maa koy liggéeyal sama bopp. <laughs> sama waa ji nag sëñ sama waa ji sëñ Abdou nag moom laa ciy àndal ndax tawféex jiñ am ñoom ci xaside yi ñoom seen mbir yëpp xaside yi rek lu ñu ci boole rek dañ ko caa boole loolu nag moo seen tawféex ju ndax xaside yi mooy lépp kon nag noonu rek nañ daal tàmbali